salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki waa Sénégal nuyu nañ leen waaw man la Talla Sall alliance Farawde waaw euh, ni ko gars yëpp di defee pour xeex feebar bi nga xamante ni mooy coronavirus euh, ñëpp jóg topp li norme yi nga xamante ni ministre de la santé wax na ko topp su suñu mag mag ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi waaw di xool ci maanaam ñuy doxalee set gi maanaam di raxasu ak eau de javel di di di raxas say loxo di ut mouchoir di taf sa bakken wala nga ut masque yoo xamante ni comme yi gars yi di jaay nga taf sa bakken yenn affaire ko bu baax te xam ne feebar bi lu existé la moo tax euh, maa ngi ñaax euh, en tant que sénégalais en tant que comédien di gën a ñaax sénégalais yi pour ñu gën a fagaru euh, ci mbir mii nga xamante ni muy feebaru coronavirus te itam lu existé la li muy rey ci doomu aadama bari na. waaw na ñun ñëpp euh, takku taxaw jàppale suñu ginnaaw nekk ci ginnaaw état bi nga xamante ni euh, ñu ngi xeex waaw coronavirus coronavirus baaxul ci réew mi kon na gars yi yëpp takku